ليلة المولد الذي كان لدي سرور بيومه والضحى kon abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu ko defee loo ñëwati nga mën ca am jaaxle jeex محمد నిజామని అక్కడి తొలి కార్యక్రమం కాబట్టి ఆయన ఇంట్లో పోటీ కాదు ఇంకో Thank you. ويطعنه منافق لفمه لو نسبت قدره ايته عظيم احيا سوء كثير انا لسنه لم يكن انسان يعني Gracias. Lord. Thank you. abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu ko defee loo ñëwati nga mën ca am jaaxle jeex na. yaay ki ko yor kaay leen ñu dem abonné.